maanaam gone yu jigéen ñi lu bari ñu jonganteeg gone yu góor yi ci wàllum njàng te ñoom gone yu jigéen yi ñoo cay jong ñoo féete kaw yunaa fis na na boobu boo ko bëgg a féetale nafsu mbaa xaynu wax albanaatu yunaa fis na xunna anfusuhunna wa kasiran ma yakunu sabxu lahunna ayunihinna mbaa anfusihinna xam nga lahunna moom xunna bi nekkul damir rafaa damiri jar la kon mën ngaa jekki-jekki fetlee ko nafsu mbaa xaynu te do yunaa fis na nag na boobu moom faaw da nga jiital yunaa fis na xunna door a andi anfusuhunna mbaa ayunuhunna التمرين التاسع والعشرون متى يتعين كان لي رانيكو نصب الاسم نصب الاسم با على انه تكون نكموم مفعول معه مفعول معه لا ومتى يجب ak kan lay war kañ lay war xatfu ak atafam xalaa ma ci la nga xam ne xablahoo nekk na ci njëkkam wa mata yajuusu ak kañ lay dagan fii ci moom al amraani yaari mbir ya maftil misaalal dane kañ lañu war a nasab lisim ba def ko maful maxoo ak kañ lañ ko war a ataf te diisu ko sañ a def maful maxoo ak kañ lay nangu yaar yëpp mu ne andi ci ay misaal loolu yomb na ba delloo ci bunt bi ñu ko jàngalee rek andi woon nañ ko fa mu leer idbit bi shakli aw axiral kalimaati fi l ibarati al aatiyati wa bayin sababa dabti fi l kalimaati allati taxtaha xattun lu mel nii wees nañ koy yooni yoon wax bi ngay seen la ne dangay maas mujj baat bu ca ne te nag baat yi ñu souligné moom da ngay leeralaale lu tax nga maas leen la nga leen maas kaanat nekkoon na al iskandariyatu al iskandariya fi zamani ci jamono ba al qadimi bay aji jëkk mahdal woloomi di laltaayu xam-xam ya wa mahbital xulamaa yi tey wàccukaayu way xam ña waxiya moom alaana léegi min azamil muduni bokk na ci gën jaare yi dëkk yu mag yi shuhratan ci siiw wa ab xadiha te bokk ci gën jaa sori seen maanaam gën jaa kawe seen mansilatan ci wàccukaay waxadd saada yokku na sukkaanuha ay abitaam way ña ko dëkkee fil awaami ci at ya al axirat yi aji mujj siyaadatan ak yokku azimatan guy aji rëy wam tàddate tàlli xumraanuha ak dundam wala civilisation bi fadli ma ci ngëneelul la nga xam ne nasha sosu na fiiha ci moom min masaania ci ay isin wa mata jira ak i jaayukaay wa qusoorin ak i pale aaliyat ñuy aji kawe wa jinaanin ak i chardin waasihat ñu aji yaatu waasiatin wa innaha naka moom la akbaru madinatin mooy gën jaare yi ab dëkk xalaa shaati il bahri bu nekk ci tafasu géej ga fii ifriqiyata ci afrique al iskandariya foofe la nekk ca misra mu nekk jamono bu jëkk ba moo doon cosaanal xeeti xam-xam yi maanaam foofu lañ daan jëm di fa wàcc di fa gëstu léegi si nee na mi ngi bokk ci dëkk yu mag yi gën a siiw ci àdduna bi te ëpp ci daraja ak solo ña fa dëkk nag yokk nañ lool ci at yu mujj yi ndaxte bu rëy rëy dëkk ba gën a dund ndax lañ fa def ci xeeti usine ak xeeti jaayukaay ak ay palais ak ay jardin yu yaatoo yaatu nee na sax jamono yi mboolem dëkk yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci tefesu géej moom al iskandariya moo ca gën a rëy foofu nag la téere bi yam muy al jusu thalis ci ar naxwu al waade ku ci déglu lu mu ci jariñ lum néew néew mu ñaanal ko doon leeral ci waxi wolof ngën ji jégalu yaraak yërmandeem ak ëppale tawfiq ci lépp li yàlla jaarale ci sëriñ bi fii ci àdduna ak foofee nu jëm te yàlla boole ko ko moog bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ci mbaax ma ngëneelam ak ci daraje sëriñ bu mag bi xadimul mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiya an wa nafaxana bihi amin
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا بوربي إنا نكن نحمدك دانا لا سنت على ما على ما تبغى خمني علمت خملنكو من البيان تي رافيت واخ والهمت داغا ينكي وليكو من التبيان تي بيرلك خول دا تامبلي سنت يالا ميغا خمني موماي دومي ادمه bu mën a xalaat ci xolam loolu mooy attibiyaan bu noppi nag lam xalaat man ko leeral ci làmmiñ loolu mooy albayaan albayaan day dellu ci làmmiñ attibiyaan di dellu ci xol doomu aadama la yàlla may bu mën a xalaat ba noppi nag lam xalaat man ko leeral ci aw làmmiñ mu leera leer bañ xam ko bi sant yàlla may loolu doomu aadama kama nahmaduka nit ñu lay sante xalaamaa ci li nga xam ne asbaxata jotal nga ko minal xattaay ca may ga wa asbalta te nga sëmbërtal ko sëmbërtal mooy jotal bu baax a baax minal xitaay ca muuraay ga noo nga lay sant lool tam ci may yi nga nu may te mu bari lool ak sàng nga nu sàng mbalaanum sutura te jotal mbalaan ma lool wa naxoobu te nuy muslu bi ko ci yow min shirati lasani ci ñawut làmmiñ maanaam làmmiñ wu ñaw mën a wax lool wa fudoolil xadari ak caaxaani bobant bobant nga wax ju bari ju am njëriñ kama naxaw bu ñu musloo rek bi ko ci yow min maarati lakkani ci ayu bi gotam wa fudooxil xasari ak gàcceeg lott ci wax day dañuy ñaan nga musal ni ci mën a wax lool ba gaañu ci wax ja mën a wax loo tam bay wax loo xam ne amul njëriñ ay bébant rek la waaye ba tey na ngeen musal nag ci tëlee wax tëlee wax nag ñaara la xam li nga war a wax waaye soo làmmiñ ci boppam moo leerut dafa dotam ak nag làmmiñ mu sikkul waaye mën laa wax la nga bëgg a wax li mu njëkk a wax min maarati lakkan ay bu dotam làmmiñ lay dellu li ci topp nag woo fa waxil xasar gàcc loot ci wax moom mooy tëlee wax dëgg dëgg rek nga xam ne làmmiñ ñu tëréwut waaye mën a jot la nga bëgg a wax moo la të te làmmiñ yi moom dara siku ca day ñaan yàlla musal ko ci mën a wax ba loru ak tëlee wax ba doo mën a jot li sax la nga bëgg a wax wa nastak fii tan yu sàkk ko fegoo bi ko ci yow ak iftitaana fitna yooga bi ibtara il maadihi ci jawu aji tagg ja wa ixdaa il musaamihi ak bu mooyut ak jàppandi jikko ja kama nastak fii ni ñuy sàkkoo fegoo bi ko ci yow al intisaaba samp di israil xaadihi ñeel xeebub aji jam ja maanaam ki yàq ab dara wa xatkil faadihi ak xootik surag aji gàcceel ja yàlla musal ñu kët ci ñaar ñii kenn ki day jeyaate ak a taggaate wala muy ku rafet jikko koo xam ne boo defee nit noonu itam day dundeewu rek du la wan ne la li nga def baaxut musal nu ci ko musal nu itam ci koo xam ne moom loo wax rek mu ne baaxut xam ne moom xeebaateeg yàq ab der rek mooy mbiram ñaar saboote kat boo xam ne loo def rek mu saboote ko yàq sab der ne li nga def baaxut wa nastaxfiruka te ñuy sàkku sa njégal min sawqi shahawaati ci màngu bànneex ya ila suuqi shubuhaati jëm ci marché lënte ya kama nastaghfiruka ni ñuy sàkkoo sa njëgal ni naqalil xatawaati ci toxal jéego ya ila qitatil xatiaati jëm ci bérébi ñaawteef ya yàlla kat ñun ay nit rek lanu sàggal lool na nga nu jégal topp ñu topp suñu bànneex ba di def xeet yu lënt yi daana ko wees sax di jéggi suñuy jéego jëm ci ay ñaawteef léegi leen def ñaawteef dëgg-dëgg léegi leen topp suñu bànneex ba dugg ci lënt loolu lépp nag jéggal ñu ko wa nastawhibu te nuy ñaan bàyyi ko ci waxa ba ñu dëgg ci istafxala mooy istawhaba wa nastawhibu te nuy ñaan min ko ci yow tawfiqan tawfiq qaa'idan bi di aji wommate ila rushd yam ci jub wa qalban ak xol mutaqalliban bi di aji wëlbatiku maxal xaqi ànd ak dëgg wa lisaanan ak làmmiñ mutaxalliyan muy aji takkaayoo bi sidqi ci ak dëggal wa nutqan ak wax mu ay yodan jëf juñ dëgërale bil xujjati ci lay wa isaabatan ak jamuk jub zaidatan buy aji dàkku maanaam buy aji dàq rek am yu sëyx wël si jeng yàlla may nu tawfiq ba nga xamee ne jub rek dañu taseel ci buñ dee wax ak buñ dee jëf may nu xol boo xam ne mu mu wëlbatiku wëlbatiku dëgg rek lay àndal may nu làmmiñ woo xam ne day takkaayoo wax dëgg may nu lépp lu ñuy wax ñu teg ko ci la yow leer woo xam ne kenn du ko mën a toppal may nu saxoo jam jub ga te bañ koo mooy benn yoon fu ñu diire rek jam jub te bañ a mooy jub ga wa azimatan akuk dogu xaahiratan gu di aji not xawa nafsi bànneexu bakkan ba wa basiratan ak gis gisu xol nu duriku bopp dana nu jote bihaa ca moom xir faanal qadri xam daraja ja yàlla may nu dogu goo xam ne day tax not suñu bakkan ba duñu jàdd may nu gis gisu xol boo xam ne leen lu ne daanu xam darajaam teg ko fan ko war a teg wa an tusxidanaa ak nga texeel nu bil hidaayati ci gindee ga ila diraayati jëm ci xàmmee wa taatudanaa te nga nuy dëgërale bil ihaanati ci dimbalee ga xalal ibaanati ci biral wa taasimana te nga nuy musal minal xawaayati ci ak réer fi riwaayati ca nett li ga sunu boroom gindi nu may nu xam-xamu diraaya dëgëral nu ba nu mën a leeral li nu bëgg a leeral sultaan fi ni daa xaw a mbiru théâtre net bi rek loo xam ne yaa ko fent musal nu nag ci bu dee nett li di ca réer réer gu méttee métti ba ku ko dégg ne lii ëppoon naa nett li loolu daal musal nu ci watax say fanaa te nga ñëwal bëti ami safaahati wayus desee bi gàtt xel fil fukaaxati ca mbóorante ma mooy ca kaf ga xataa na amana ba doon wóolu xasaa idal alsinati góobiit làmmiñ yi maanaam waxi làmmiñ yi wa nukk faa te dee fi nga fegal rawaa ilal zaxarafati gàkki rafetal maanaam daa war a firi way yongu rafetal ga waaye dafa jublu wa nukk faa afaatit tasyin maanaam muy yàq rafetal ga maanaam bëgg a rafetal ba far yàq dane mun kët taalif yi mu taalif day bari ay kaf musal nag ci kaf goo xam day suufe suufe lool ba àgg ci gàtt xel loolu tax nag ñu mucc ci làmmeñ doomi aadama yi tey buñ àgg ci bëggoon rafetal far ëppal ba ñaawal lépp daal musal nu ci fala narida ba dunu ret mawrida ma samatin rotukaayu bàkkaar wala naqifa te dunu taxaw mawqifa mandamatin taxawukaayu rëccu wala muru xaqa te deefunu togg bi tabixatin ci ak tooñ wala maa tabatin bi caagoon ak yedd mu yaraange wala nur ja te deefunu loreloo muy deefunu obligé ila ma diratin jëm ci doro ngant xan baadiratin wëlis baat bu rëcc baadiratu mooy baat baat bu rëcc nga wax ko mbaa jëf coo gaawantu jëf ko gannaaw ba nag nga naa baal leen ma dama rëcc de tax mu naa al baadiratu al kalimatu wal faalatu allati yubaadiru ilayha al insaanu min gayri rawiyatin fataqahu qataan baadira mooy baat mbaa jëf joo xam nit da ko gaawantu def ko te seetan tamit ko defee nag mu daal nekk njuumte mu di ko jégloo ko naa baal leen ma suñ boroom li mu la ñaan doonu ko mayee rek suñ taal yi dañ ci yenn benn bàkkaar bu mujj di rëcc bi taxoon mu taalif ko doon ci indi dara yu tax ñu naa tooñ nga mbaa dina yedd ba tey doonu maye loolu daal bul àgg ci wax loo xam ne ñu rëcc ba jekk di ko jégguloo ko dogal ngànt doonu maye li lay ñaan daal li lépp daal na ci mucc allahuma yow buur bi fa xaqiq yàlla nga dëggal lanaa ñeel nu haadihil muniyata mi la mébét wa anil naa te yàlla na nga nu jox haadihil buxyata bi la càkkuteef wala tudxinaa te yàlla boo nu siñaagal maa te yàlla boo nu génne xam zillika wëli sa ker ga al saadixi gi aji jot wala te jaxal naa te yàlla boo nu def mëbbu xatam mi aw dog min maadixi ñeel aji sàqami ja suñu boroom may na lin la ñaan àggalal na suñu mébét te bul nu génne ci sa kër yërmaande guddal liggéey bul waaye nit ñi ñu ngi teg ay baat di liggéey rek mel ne kuy lekk suñu yàpp moo tax faraa binaa maanaahu wala tajhal naa uxbeefatan fi afwaahi nnaasi yatakallamuuna fiina bilqabihi fa nasiru ka annana luxuumun yukalu bilxibati faqad madat naa tàllal na ilayka jëm ci yow yadal masalati loxol ñaan wa baqa naa te mu tudd bil istikaanati ci toroxlu laka jëm ci yow wal maskanati akub miskin miskin lu wastanzal naa te sàkku na ma wàcce karamaka sa tedd nga mooy sa mbaax gi al jàmm gi aji bari wa fadlaka ak sa ngëneel la ëllësi li nga xam ne xamma matale na moo ngi koy sàkku wàccee bi baraaxati tala bi ci toroxlu sàkku maanaam sàkku gu ànd toroxlu woo bi baraaxatil amali ak mërsali suñu yaakaar ak ak ak maanaam rafet njort ci yow yaakaar la suma bit tawassulu topp ci jotli ko bi muhammad ci muhammad sayyidil bashari mi sang mbindeef yi wa shafihi tey aji ramooja al mushafahi ka di ko nangu am tinoom fil mahshari ca pang ma allati muhammad mi nga xam ne xatamta mot lee nga bii ci moom annabi yi ne yonante ya wa alayta te nga kaweel darajatahu darajaam fi illiyiin ci illiyiin wa wasaftahu te nga melal ko fi kitaabika ci sa téere bi al mubin bi aji bir bi aji leer di fi aji biral di fi aji bir rek fa xulta te nga wax wa anta te yow asbaqul qaa'ilina yaay gën jaa dëggali koy wax ña ne wa ma arsalnaaka yónni wun la illa rahmatan ndal nga yërmaande lil aalamiina ñeel mbindéef yi allahumma yow buur bi fa salli yàlla nga doy tedd nga alayhi ci moom wa ala alihi ak yowam alhaadina ñi dangay jubal wa asxaabihi ak saxaabaam wa asxaabihi alladina ñi nga xam ne shaadoo yëkkati nañu addina diina ji wa jaxal naa yàlla na nga def muttabiina ñu ngay topp li hadihi ñeel njubam nga wa hadihim ak seen njub ga wan faa naa yàlla na nga ñu jëriñ bi mahabbatihi ci ak soppam wa mahabbatihim ak seenu sopp ajmahina boole seen innaka naka yow xadiir yaay aji àttan xalaa kulli shay'in ci lépp mbir wa jadiirun te yaay aji yeyoo bil ijaabati ci wuyu ñaan suñu boroom noo ngi lay tàllal loxol yalwaan di torox lu jëm si ci yow xam ne ñun ay miskin rek lañu amuñu mënuñu sañunu yow nag ngay ko bare bari mbaax teraangaam ngëneel noo ngi sàkku nag sa mbaax geeg sa ngëneel li ci torox lu jëm si ci yow ak rafet njort ci yow teg ca nag jot li nga darajee sang bi nga xam ne mooy Muhammad nga def ko muy sang mboolem mbindeef yi te bu ëllëgee ci bis penc moom ngay may mu tinu te bu tinoo nga nangu am tinoom daal yërëm mbindeef yi moom nga def mu mujj ci yonent yëpp kayal dara jaam ci xilli yi na wax ci alquran ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yéen yi lu may nga yërmaande mboolem mbindeef yi suñu borom sang boobu dolli ko teraanga ak mboolem mbokkam yi juboon tey jubal ak saxaabaam yi nga xam ne ñoo taxaw diine ba diine taxaw ñun nag yàlla nanga nu may ñu topp ci njub yonante bi ak njubub gaayam yooyee yàlla nga nu may sopp gën ko sopp ak sopp gën leen sopp mu jëriñu ca faaw ci yaari cofeel yooyu ndax yow lépp nga moom rawante na nag mun ñaan it kalay ñaan loolu mooy sant yàlla geeg julli ci yonante bi wa baax bu gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi fa innahu naka la mbir moo di xadd jaraa dawoon na maanaam xewoon na rek du baax bi an diyeetil adab yi ci lenn ci penc ci adab ëllëg yi adab moo xam ne rakkadat taxar na taxar na mooy dal na fii haadal xasri ci jile jamono riim xoo ngelawam waxabat te giin mooy te fay massa biibuhoo ay làmpam jaraa bale fiilul maadin la zikru bi mooy fa'ilam zikrul maqaamaati tudd maqaama ya allati ya nga xam ne ibtadaxaha fentoon na leen badiixu zamaani badiixu zamaan wa alaamatu hamadaan tey xamkatub hamadaan rahimahu yàlla na ko doole yërëm allahu taala wa xasaate mu askanoon ila abil fathi jëm ci abil fathi al iskandar yi koy ko jóg iskandar nashaataha sosut maqaama yooyee wa ila xiisa bin hishaamin mu askanoon jëme ci xiisa bin hishaam riwaayataha nett nit maqaama yooyee wa kilaahuma te képp ci ñoom ñaar majhuul kuñ réere la laa yorafu defu ko xam wa nakkiratun te nakkire la laa tataxarafu jóg du maarifa wu mooy jóg du leer ba nga xam ko dangay jëkk xam adab ci boppam adab buñ ko waxee mooy way wala wasar woo xam nañ ko xoromal neexal ko wa mu neex a jàng neex a dégg loolu mooy adab mën naa nekk woo mën naa nekk wasar mais ñi mu taalif nii adab la ak yu bari mu ne adab ñi nga xam ne jamono jum toll dafa dellu gannaaw loolu ba su fekkoon ne amoon na ngelaw nga ne ngelaw dana tekk ci asamaan ngelaw tut su fekkoon ne moom adab amoon na làmp nga ne làmp ya fay na day wax rek jamono bi nga waxee lii booba ni adab deltoo gannaaw mu ne adab moom dañ ko doon waxtaane ci yenn penc yi ba jot faa tudd maqaama yi nga xam ne ku ñu wax badiixu samaan te bokkoon ci waa Hamazaan moo taalifoon maqaama yooyu moom daa mel ne kuy théâtre wut koo xam ne mooy def jaloore yi tudde ko Abul Fath al Iskandari yi wut koo xam ne mooy nekk li jaloore yi tudde ko Hiisa ibn Hishaam noonu la badiixu samaan defoon nga xam ne day mel ne kuy théâtre di tudd ay jaloore yu rëy rëy am ku koy askan ne mooy def jaloore yi wut nag koo xam ne mooy fekkee jaloore yi di ko nettali ne noonu la koo ko defoon te mu ne amutoon ca dëgg-dëgg ku tudd Abul Fath ju wóor a wóor mbaa ku tudd Hiisa ibn Hishaam moom moo defee woon noonu ci kuy théâtre rek dañoo toogoon na ci benn ci penc adab yi ci waxtaane mbirum adab ba tudd nag maqaam ba tudd nag maqaama yooyu nga xam ne waa jooju moo ko taalifoon dañ ko tuddee nag fa ashaarati junju man ka nga xam ne ishaaratuhoo junjam xukkumun atte la wa taaxatuhoo te toppam woon mun ak màng la ila an unshi a jëm ci ma sos maqaamaatin ay maqaama at loowu dinaa topp fiihaa ci ñoom tilool badihi yoonu badihu samaan wa ilam yudrik ak doon te mënta jot aw waalihu aji soox ja chewa balihi xelu aji am kàttan ja sooxut nee na bañ dee tudd ca pénc moomee maqaama yi badiw samaan defoon am kilifa gu fa teewoon goo xam ne lu mu joxoñ des ko war a dog lu mu digle ñu war koo topp te ku ko topp jëriñu kilifa gënee man xariri yi nii naa jéem a sos ay maqaama yoo xam daa cee roy badiwu samaan mel na koy théâtre wut kuy def jaloore yi ak ku koy fekk di ko nettali doonte sax tey soox mënta jot xelu te sooxut te am doole maanaam te sooxut gaaw lool kii soox ba nu ko jot maanaam mooy soo mënta def lu mel ne la ba diw samaan defoo nit naa ko jéem a roy rek loolu la kilifa boobu wax fa zakartuhu ma tuddanteeg moom bimaa ci li nga xam ne xii la waxeef na ko fii man ca ka nga xam ne allah fa boole na bay na kalima tey diggante ñaari baat wa nazama te mu way bayatun aw bayit aw bayitay ni wala yaari bayit ma fàttali ko ne ko ah am na lu mu wax day ci kuy jéem a taalif ba wax ay baat baa mooy benn bayit mbaa ñaar boo xoolee sawa ba mu ne haadihi isharatun ila qawlihim man allafa kitaaban aw qaala shi'ran fa innama yaaridu ala annaasi xaqlah fa in asaaba faqad istuhdif wa in axtaa faqad istuqdif ak wa qawlihim laa yazaalu lmaru fi fusxatin min amrihi maa lam yaqul shi'ran aw yu'allif kitaaban nee na mu fàttali ko lu ñu waxoon ne ku taalif ab téere mbaa nga wax way dangaa mel ne ku génne sam xel di ko wan nit ñi naa leen sama xel fii la toll su fekkee la nga def jub na ñëpp tàmbalee joŋante yow ba xam yaa ngi ñoom ku cay dàq taalif baa ku cay dàq way soo juumee nag moom ñu wecc la faaw nga daanu kenn du la tuddati loolu mooy jenn wax ji ba jëges mooy nit li fekk waxul woy taaliful benn téere mu ngi ci jàmmam moom boppam waaye nag bu xasee wax way mbaa mu taaliful téere moom mënatul boppam du nekkati ci jàmm nee na ma fàttaliku loolu ndax bëgg rek mu bàyyi ma ma bañ a jéem lu mel ne lii wastaqaltu te ma sàkkoo xàccalu mooy ma sàkkoo bàyyi min haadal maqaami ci bi la maqaama allasi bi nga xam ne yaxaaru dana gëlëm yaxaaru dana gëlëm fii ci moom alfahmu xel ma wa yafrutu te rëcc alwahmu njuumte la wala defe ga wa yusbaru te def nattoo ci moom xawrul xaqlu xóotaayu xel ma wa tatabayanu te ci leere xiimatul mar i xaymay cam sa fil fadli ci ngëneel la jéem naa ba tàyyi daal mu jéggal ma ma bañ a jéem maqaam mel ñi nga xam ne boo koy def day mel ne sa xel day gëlëm njuum te mën laa rëcc fi saasa te doo ko yëg ñu xame ca sam xel fu mu toll xame ca loolu yàlla may ci ngëneel lu wax waaye bu taru te day fi loruloo saaxiboo boroomam ilaa an yakkoon jëm ci ba mu nekk ka xaati bi lay lim di mel ni aji taxan guddi aw jaalu bi rajulin wala aji rëgët mooy néeru mooy néeru mooy ñu def ak tànk ba tax mu naa rajulin jamhu rajulin la wa huwa almaashi ala rajulayhi wa xaylin ak ay fas ah nee na ma ne ko kuy taalif maqaama da ngay dem bay jaxase yu bokkut mel ne kuy taxan guddi nga xam ne mën naa boole mat ak i dét jaan mbaa jiite na ko te du ci yëg dara ku taalif maqaama nag da ngay jaxase rek lu baax lu wér ak lu wérut mel na kuy taxan guddi rek di jaxase rek mat ak ay dégg yooyu lu nekk mën na ko caa dal mbaa boog kuy boole ñi dox ay tànk ak ñu war ay fas ñu dox ak tànk ak ñu war ay fas boo leen jaxasee rek mën naa am ñu war fas ya dal ca yooyu dox tànk ya day wax rek ku jéem a taalif maqaama ñu mu la mën a indee ak jaxasee di boole yu bokkut di juum rek di wéy waxal la ma sani ma néewaan ab muccee miksaarum bariwaa ko nu wax aw uqila wala xàccaleef la xoo ñeel ko xisaarum ak fakkastaloo nee ma ne ko nee nañ kat ku bari ay wax moom du mucc daanaka taaw rek mu wax lu ko lor te it bu juumee kenn du ko jégal dañuy wax xamoon nañ ko daa bari wax li mënu ko woon ñàkk dal mooy aw uqila la xoo xitaar ku bari wax daal moom mucc mbaa mu juum ba noppi mu jégal kooko néewaana ca lu lépp wax naa ko ndax bëgg mu dimbali ma ci ba may jublu ci taalif maqaama daal lay wax naa falam ma lam yusxif ba nga xamee ne dimbalee wut bil iqaalati ci xàccal ga wala anfa te jéggalewut minal maqaalati ca wax ja la baytu wuyu naa daawataxoo wooteem nga tal bi watal mutihi ke wuyuk aji topp wa badaltu te ma joxe fi mutaawaatihi ci ak toppam juhdal mustatihi kàttanuk ajina ma def kem kàttanam wa an shaatu te ma sos xalaama ànd ak li nga xam ne ohaa ñii dana jànkonteeg moom min xarifatin ci am xel jaami dat mu di aji way xel moo xam naccut wa fitnatin ak sago xaami datum suñu aji géem wara wi yëtin ako settantal naaw bi datum gu di aji nees wa xumóonin ak ay njàqare wala ay yitte naa si dat ñu aji sonle ma sos nag xam si na ma fay njële ci an si atu bale xam si na juróom fukk maqaamatan ci ay maqaama taxte yi danañu ëmb danañu làq xalaa jiddil xawmi ci dëggu wax ja waxas lihi ak kafam muy mbóoranteem wa raqiqi lawdi ak aji sewi baat wa jaslihi ak aji dijam